ilaha illallah alaaji Abdou Aziz lu garaaw moo naroon mooy lan mais alaaji Abdou Aziz Mbaye waaw Balla Gaye dafa dugg si alaaji Abdou Aziz Mbaye est-ce mais euh, garab ca kaw lay fekkante yaa ko wax waaw te ñaari mbër bu ñu bëggantee foog ñu bëre waaye Balla Gaye dafa am ñaari défi bu amee bu si te dina am bu Boy Niang parce que Boy Niang wax na ko ba pare mais Lamine waaye am na ku nekk ci géew bi alaaji Abdou Aziz Mbaye waaw waaw ninki nanka moo nekk ci géew bi